suñu borom bu ko neexoon lii xew ci réew yëpp man a xew diggante Gambie ak fii xooleen ni ko yàlla doxalee président Adama Barrow wax na ko léegi nee na Gambien bi ñu tiitee xalaatuñ Guinée Bissau xalaatuñ Mauritanie xalaatuñ Mali xalaatuñ fenn fii lañ xalaat Sénégal hmm? loolu leer na mu mel ni kon. dafa am cant gu ñu war a sant yàlla jaare ci ko jaare la ko ci xalifa bee nga xamante ne bi moom la seeti woon mu ñaanal ko avant muy wët nguur ga waaw ndax itam tëb tëb rek jubali ci yàlla wóorul xamoo ba xam mën nga faa yëggam déet li toxoon ñuy wut wasila ku tedd ki li tax mu jël yonent bi alayhi salaatu wasalaam doxale ko diggam ak yàlla pour eggoon ca yàlla la. Hmm? dalani allahu ala muhammadin waxaadini muhammadin li sama di yàlla moo ko tegtal yonent bi yonent bi jël ko tegaat ko ci loxo yàlla looloo waral la ma xayaati lil xayaatillaahi illaa udaxilu jinaanullaahi dundam ak dundum yàlla nii la def moo waral mahamamatan xat naha nufuusa ji ma waxoon léegi wali si waaye saaxahu tan fii saaku taqoog moom kenn du la raj dee naturel rek mbaa doo dee ku mu neex gëm ku mu neex bañ a gëm waaw ah, man de kenn mënu maa rey man kenn mënu rey <laughs> loolu laa gëm naturellement rek kon dafa mel ni cant googu ñuy sant subhanahu wa taala te ku tedd jàngal nu alhamdu wa shukru maan lillaahi maanaam cant gi ngay prononcé ak cant gi nga xamante ne bii ca xol ba la jóge cantu xol ak cantu làmmiñ mbaa cantuk jëf ndax lu ci nekk lu ci nekk cant la bu la neexee man ngaa sant ci yéene man ngaa sant ci saw làmmeñ waaye mën ngaa sant ci action bu ci nekk malaaka da koy nangu te daf koy mentionné kon Sénégal ak Gambie yépp war nañoo sant yàlla mu des l'homme fort sama digganteek moom Macky sama digganteek Ablaye Wade sama digganteek Abdou Diouf di juuf defe naa ni yaakaar naa ne mi ngi fi demagul ku ci nekk am na fu ma jaar ak yow Abdou Diouf Ablaye Wade Macky Macky ba may jaar ak moom fa may jaar ak moom booba faloogul moo ma njëkkoon a ji teraanga nag ca kanam Hadji Moustapha Cissé son excellence pire ca gàmmoom ga waaye man récemment il y a quelques mois dafa am promesse bu ma ko joxoon ci teewaayu Mohamed jonn son premier ministre te loolu mu mel ni li kulli shay'in ajal ni ma ko waxee woon léegi maanaam suñu dund gi jour après jour moom lu nekk ak waxtoom maanaam ku la yawmin ku la yawmin huwa fii sha'ni bis bu nekk ak la cay war a xew mu mel ni promesse ba ma ko joxoon bu fekkonte ne dafa nekk dans dafa nekk ci benn centre boo xamante ni bii dafa am ay domaine ci biir man dafa am boo xamante ni bii man la ko ko tedd ki jagleel moom mu nekk président de la république tax ñu jox ko benn double ñaari clé la maa yor benn bi moom mu yor benn mais moom amul droit ubbi sans sama aval man am naa droit dem ubbi man mais duma ko def damay patienter di ko déglu ba xam il a le courage waaw d'ouvrir la porte ou bien day taxaw fi bu taxaw kooku moom xamante nañ on en reparlera